ne mi ngi leen di jot seex jottali nuyoo Cheikh mun taxa mi fii sëriñ Touba tey ci kaw suuf ne ñu ñaan nag sëñ Mountakha yàgg fi lool te ànd ak wér ne yónnee na fi ngir ànd ak yéen bis bi ngir xam li mu doon ci moom ak fi mu toll ci moom waaye ñu dellusiwaatal ko ngir siyaar si leen ko. ngir xam ni ku mel nii kët buñ ko ñàkkee ne lislaam bépp a ko ñàkk rawatina yoonu muri ne kon kay lu mu xat-xat ne bu dajewuloon bisu màggalu poroxaan ne denc ba daañu ko ànd ak yéen bis bu jëkk bi daañu ko ànd ak yéen ne ndax nun kat waruñoo amuk bëgg lu muy xencu jeexi ci sëriñ Touba ak toppatoo njabootu sëriñ Touba ne loolu fi ñu ko teg ne dafa mën a dégg ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké mu ni Serigne Touba dafa waxoon Cheikh mu Moussa Mbacké ni ko yéen day seenu jaamu yàlla ginnaaw yi yàlla farataal ci yéen mooy jaxasoog bindee fi di dékku seeni lor di dékku seeni mitit ak di leen taxaw moo ëpp ci seenu jaamu yàlla nee nag ba mu duggee ca noppam nag ba nëga lépp lu muy def rek ne loolu la cay jiital fas ca yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ngir xam ni moo am njëriñ ci àddina am njariñ ci àllaaxira kon sëriñ ba Cheikh Madul Bachir ne ñu ngi nuyu njaboot gi yëpp ne njabootu sëriñ Abdourahmane Fall Tilla la ne tàmbalee ko ci ci boppam ji lépp ak ki nga xam ni mooy doomam di Cheikh Abdoul Aziz ak mbooleem rakkam yi fi teew ne di la ñaanal bu baax yàlla dëgëral la ba sàmmal la ndonole ba sa waajur la mu nekkoon ñépp ràññu ko ca ku ko tudd rek la muy seew nit ku yiwe la nit ku yéwén la te bëgg sëriñ Touba ne loolu kat doy na ko sëkk ndam ne ñu war a rafetit sërif njort bu baax a baax da koy waxaat dañu koy tekki ñëpp dégg ko ba ma koy jot li gisuma ne ñi nga xam ni dañoo faatu ci xare bi yàlla te loolu mooy jihaat ne du bu leen jort ni ñooñu kat dañoo faatu ne sunu borom da leen toxali fii yóbbu leen feneen ba aaya ba jeex ne kon na seenu xel dal ci ñoom ne bu tiit bu ragal fa jëm waxul nag sërif moom ci boppam li mu liggéeyal Touba nga xam dundam gépp ci la ko jeexale lu am ci la ko def waaye mujjëm kii nag sëñ Cheikh Madul Basir nee na jihaat la nee jihaat nag ku ca faatu nee sahid nga sahid nag mooy koo xam ni atteb ku dee ci xare nga nee waxul rafet njott rek waaye waris naa am yàqin ci moom bi fi Sëriñ Tuubaa nekkee ne ku mas a faatu ci kanamam la gën a bari mën naa wax mbooloo mi ñu ñëw ci moom wala mu yebal leen ca beneen seex wala mu yebal leen ca kenn ca njaboot ga ne sëñ bi moo xam na muy soppaxndikoo noonu la daa doxale moo tax yépp ñi fi bàyyi ko ci kanamam te doon borom mbooloo ña cëpp seeni waa kër mbooloo ma topp leen ne bi sëñ Modou Moussa ñëwee nag moom ne yoon wi kat yoonu murit bu doonub tabax ne kenn yépp seex Moustapha moo ko taxawal ne lii sëñ Modou Moustapha moo ko indi ci yoonu murit mooy ku fi bàyyi ko kam nag ca njaboot ga mu jiital ko ñépp topp ko ne loolu nag lijjanti la bu wóor boo xam ne bu amul woon am lëj lay gën a indi te Serigne tubaa daana wax ni ñi may booleeg mbooloo kat ñaar lañu ñii dama leen a booleeg mbooloo ngir ñu defar mbooloo ma ñii dama leen a booleeg mbooloo ngir mbooloo ma sàmm leen ne kon loolu dañu daal di tënku ci loolu ne mun munta génn ñaar yooyu baax di leen gërëm di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa moom mi fi bàyyi ko fa mu jëm dàqal ko fi mu jógee te loolu moom na ci xel yépp dal ne Serigne Touba waxoon na ni képp ku ma yaakaar da nga tabbi àjjana tey deesu la isaab waxoon na it ni bu murit yëpp faatoondoo woon ñu suulandoo leen ci seen saa taalibe bu tabbi ca biir bàmmeel maa lay nangu sama loxo yi ne dégg na sëriñ son yi bu waajuram woo mu wax ni ne sëñ Tuubaa daa nekk ci njariñ di julli rakkaa bi yàgg lool ba jaaxal nit ñi ba jaaxal nit ñi ne bi mu sëlmalee nag ñu seen mbuum mi tooy xëpp sëñ bi ne xanaa sama julli gi jaaxal na leen ñu ne ko am nañ ci jaaxal kay mu ne dafa am kenn ci taalibe naari gànnaar yi dafa nekkoon ci géej gi di lab dafa newoon ci géej gi di lab woo ab sëriñam woo ab sëriñam te kooku amul daraja man ko xitti ma dem di ko xettali ngir bañ yaakaaram cëpp sëriñam tas ne nekkoon loolu taalibe moom na seenum xel dal kii fi bàyyi ko waxul bëgg gi mu bëgg sëriñ Tuubaa waaye bëgg gi mu bëgg Cheikh Ibrahima Fall doy na ko sëkk ne képp koo xam ne sa taalibe wér na Serigne Touba doo sikki sàkk ci mbirum Cheikh Ibrahima ne ku sikki sàkk rek sa yàqin ci Serigne Touba des na te ñaar yooyu rek mooy mandarga mi wasalaamualeykum waaw ñu tàllal na ñëpp tàllal